waaw doolu siyaar. alors Papis naka nga gisee euh, match tay bi. waaw neex neex na. Ah. neex na match bi tàmbali nañ ko gars yi mënee nañ ko <laughs> mais des na 45 minutes de. ah mais 45 minutes est ce que gars yi duñ ko tënk. non xaaral rek xaaral ba gis. alors lii la lii naka la lay def nga ñëw tey fekk sa gars yi nga xamante ni bii nii yéen a daan nekkandoo fële même su fekkee gëj ngeen nekk tey nga ñëw fekkante waat ak ñoom fii nii. non ça fait plaisir ñun mosuñu gëj a nekk ñun dañuy nekk tout temps même bu ñu Europe dañuy gisante donc. Euh, gis public bi gis waa Pikine ñoo supporter seen équipe surtout donc ça fait plaisir donc. Euh, léegi ci match bi mooy diggante AS Pikine la ak Sénégal. wa AS Pikine ak Sénégal la donc dañuy wax ni Sénégal contre Sénégal la you know donc euh, match bi neex na neex na trop. y a y a énormément de qualité ci seen ci seen équipe donc euh, dañ leen di wax ñu gëna gor gor sànq amna lo wax nga ne yéen da ngeen di fooyee si gars yi te gars ñoo leen mënee. non waxuma dañ leen fooyee ci dama la ne. ah da ngeen da ngeen a pour foo si. maanaam da non non non non non non non <laughs> non xam nga football foo la. Uh-huh. donc man non lay jappé football am ah, bo ci ku ci dur reetaan man pour man do doo football parce que football c'est quelque chose d'extraordinaire xam nga donc euh, man lol non moo tax waxé non mais buma duggé duggee ci biir foofu jeex na de. Ah. caaxaan jeex na de. <laughs> waaw caaxaan ah, jeex na nañ gis ni nga doon def ak bal bi alors naka nga gisee euh, li nga xamanténi bi euh, Sadio Mané def nako ko Bambali. waaw koku koku sama rak la. sama rak la doomu Sénégal la def na limu wara def donc euh, participer dans le développement du pays ñun ñëpp daf ñoo war donc mom dem na ci côté bobu def lolu dañ koy ñaan mu gëna samp yenen yu yu raw lolu pour que voilà jeunesse bi nit ñi nek ci dëkk bi ak ku nek gis-gis boppam quoi donc dañ koy ñaanal ku du fan ak wër diko remercier aussi diko ko merci parce que c'est pas facile li nga li nga yoré nga bokk ak nit ñi c'est pas facile donc on lui dit euh, félicitations et merci man message nga ci lancé waale jeunesse euh, bi nga bi ni euh, ñom ñu ngi nekk ci football bi di jël sen xaliss ni ko def ci yeneen yo xamanteni naka sudul nonu la. wa ah, non xam nga xam nga football mom dafa laaj investissement donc euh, ku ci ku ci bëgg am ndam da ngay investir parce que football demul da. mënul dem mom kese parce que dafa am ay yu ci ginaawam ay yu bëri yoo xamante ni que plus financièrement donc damay ñaax ñaax gaay gaay am sen xaliss nañ investir ci football bi investir ci jeunesse bi